il fallait que ku nekk bàyyi li gënoon pousse mais après ndegam avons ñu ngi table dit wax autorités yi ñooñu ko euh, Sénégal nous représenté pour le Sénégal les villageois et puis ont événement yu bari après tabaski villageois village kon dit euh, xam état table et que Nous avons aussi ne euh, août euh, mois de août 2019 bu njëkkee war a tëj marché Sandaga euh, ministre mi ngi wax ne obstacle commerçant yi loolu mais nekk loon commerçant yi moom moo amuloon site de recasement boo xam daf ñu koy dugal moo taxoon affaire bi taxaw beneen bi aussi ñuy fàttali ne ñun ñoo demoon si président ñaan ko pour ñu defar marché Sandaga mu may ñu ko ne dina ko financer suy fonds propre léegi nag ñun ñu ànd seeg ministre Aliou Sall ak comité de pilotage boo xam ne directeur commerce intérieur moo ko 10 commerçants box si les riverains euh ak présence Moussa Wane kon nak lolo suñu nekké liggéey nañ ci ben maquette ba am ko ba nga xamné maquette bi validé nañ ko décembre euh, septembre 2018 liggéey yi waroon commencé septembre décembre 2018 kon waroon terminer actuellement parce que 1 an 6 mois la waroon jël suñu nekkee obstacle amna ci si ñom la te lu tax mu nekk si ñoom mooy ne ñoom ñoo indi beneen maquette 9 mois après ne bee dañ koy puus bii la ñuy indi te buñ koy defar yëgaluñ ñu participer wuñ ci te président def na woon nañu si dugal commencement ba fin en amont et en aval. site boobu gënaluñu parce que waxoon nañ leen ko depuis 2019 ne leen site bi baaxul dafa enclavé difficile d'accès kenn mënu fa def commerce te ñuy bañ suñu alal yàqu mais ndegam dëggaluñ ñu ba tanal lañ seen bop seen site parce que ñu 9 points yi ñu fa bàyyi woon en août 2019 moy ne soit site bi ñu impliqué ñu ci ak confection site bi mais malheureusement boolewuñ ñu si def nañ fa alal du jeex té xam nga dëggam négociation il faut ku nek bayyi euh kon xam naa ne site bob inshallah allah nañ xool ni ñuy waxtaanee ba mëna xol xool ni ñu koy aménager. ban bërëb lañ tànn pour recaser. site de recasement mu ngi nek centre de course derrière 4C ci wetu 4C. bon medina la nek waaw légui manam euh, site bobu dafa dafa dafa enclavé mais nag non non c'est difficile d'accès so duggee won Dakar gi bëgg fa dem so jëlul euh, taxi so dem do dem mhm. té xam nga moyen de transport lo data population bi ñi nekkon ci bir bâtiment ñu recaser len ba ñu don duggee Dakar Plateau yépp dañuy préférer dem Medina parce que mën nga fay rapide fukki dërëm wala 100 francs que di jël taxi di dem champ de course. fim mu ni liñ li ñu ciblé xam naa 400 commerçants lay jël parce que so xolé li nga xamné ne recensé nañ ko 382 exactement la si li nga xamné ne préfet liggéeyoon nañ ci. légui na xamna né ne vérifier wat ba xam amul kuñ faté amul place buñ teub ak yoy mais xamna né pour le moment matagul 400. Nous avons loolu dinañ si liggéey liggéey dimension continue. Nous nan si mais nous ñu am garantie Si demain, nous am dans deux ans marché bi day ku place te loolu autorité en présence des témoins yoo xam ay personnalité signé un accord parce que ministre bi ay waxam rek duñ ci mën a sukkandiku parce que ëllëg mën na ko fa te ku koy remplacer mën na wax na waxam engagé wuñu comme li ñu dal ak ministre du commerce bu bees bi nga xam ne ba Aliou Sarr demee ba léegi nanguwu ñëw recevoir waxu si suñu mbir daal ako mooy suñu ministère de tutelle kon nag yooyu yëpp dañ ciy dañ ciy bàyyi xel expérience bi ñu am durant tout ce parcours bi nga xam ne créé nañ association dañ ciy bàyyi xel léegi lépp loo xam ne def nañ ko dañ ko bëgg a bind ko si këyit nga xam ne autorité ba su fi nekkul tey këyit